ndéem am na yàqute yu bari yu ñu jotoon a nemmeeku ci manifestation yu amoon benn jàpp ñetti fan ci weeru juin atum 2023 bi ñu génn ca daara ju kaw bi di université soxante Anta Diop te Ndakaaru lu bari ci këyit yi la doxalinu daara jooju dañ ko daal di tàll rawatina ci bërëb bi di fac lettres et sciences humaines ak fac na naka noonu njiital daara ji di dalal xelu askan wi ñi daanu mën a wéyal seen liggéey donte li yàqu bari na loola kayit yi ñeel diplôme yi muy lijaasa yenn yooyu nga fa ba tey sa fac lettre moom dépôt annexe ba la manifestation yu jotoon na tàll daal di yàq itam lu toll ci ñaar fukki junniy dossier yu ay étudiants am lu bare bare loo xam ni jotoon nañu ko denc ci xarala yu bees yi. examen ya ndongo yi jotoon a def itam xibaar yi ñeel njàng mi atum 1957 ba tey amul dara lu ci jot a yàqu sa fac médecine nag moom am lu toll ci téeméer bu jël fukki dossier ak juróom yu jot a yàqu foofee lépp ñu daal di koy tàll. muy lu ci bari ay dossiers yoo xam ni liggéeykat ya fa ne woon bu yàgg lool la. naka noonu lijaasa ña jàng sa fac lettre ak fac médecine amut lu si am gàllankoor ndax procès verbal ya lépp ngi tege njiitu daara ji di woote dal bëgg a def kem kattanam ngir yiir daara ji kawe ji ak dara jaam ju kawe buñ ko xamee woon bu yàgg lool la te kenn amut sañ-sañu gàkkal loolee.